Notification bi euh, on a on a mentionné euh, Ousmane Sonko né le 15 euh, alors que Ousmane ñun euh, pièce bi ñu gisoon si moom il est il le 14. Mm -hmm. léegi nag dama xamul ban Ousmane Sonko la ñuy wax ba xam ñoom dañoo am beneen Ousmane Sonko bu ñu ko jox wala Ousmane Sonko bi amoon coow ak Adji Sarr la ñu jox boobu euh, beneen bi aussi mooy euh, bu certains certains disent aussi que Ousmane Sonko ak ay ñooñu jotuñu notification bi. Mhm. c'est-à-dire bu dekkee jotu ko kon seen notification ñun presse bi lañ ko envoyé. Mhm. ñun ñoo si débat mais Ousmane Sonko bu dekkee jotu ko fan la nekk ak fan lañ ko yóbbul. Mhm. mais eh, lu si mënte xew. gars yi xamoon nañ ne man yàgg naa koo wax fii xamoon nañ ne que Ousmane Sonko sénégalais yi. si mhm. 100 pour cent sénégalais yi boo leen jëlee 98 pour cent yi jàppoon nañ ne Ousmane Sonko du bokk si élection yi. parce que presque boo xoolee tractation yi fi am yëpp ak tentative fi amoon yëpp pour. empêcher Ousmane Sonko de participer à ces prochaines élections la woon. Mhm. et de euh, sax gis nga encore fu ñu demaat dem nañ ba nga xamante ne mooy parti Pastef sax nee nañ dissoudre nañ ko même bu fekkee ne sax comme ni ko président bi waxee ci euh, médias étrangers yi que ñoom ñu ngi si seeni recours donc euh, yooyu yëpp mu ngi si mais man li ma doon wax. Mhm. dama yàgg wax ne Ousmane Sonko ak ay ñoñoom mooy ñi ànd ak moom. dañoo manqué seen cible dañoo dañoo cible ba ñu waroon a viser dañ ko bàyyi woon mooy hmm. danga nga doon yàgg digg si presse bi fu nekk ko yi di wax ñoom si boppam ñuy wax ne comme ni ko président la mi ngay waxee que lii nii dafa nekk une affaire politique un combat politique mais boo leen fàttaliku man yàgg naa wax ne ça devait être plutôt un combat juridique et judiciaire boo xamante ne il fallait le mener. parce que nag nit boo amee moom jafe-jafe ak yoon bu fekkee ne say mbir aussi si yoon lañ koy lijjantee mieux vaut que nga am ay avocat dynamique yoo xamante ne si wàllum yoon dañ lay taxawu. Mhm. mais dama doon gis ne ñu doon wax si wàllum Pastef yëpp ak Sonko yëpp ñoom si wàllum politique lañ jàppee affaire bi mooy Macky Sall moo bëgg def troisième mandat Macky Sall moom moo bëgg empêcher Ousmane Sonko mu mu dem si élection yi Macky moom moo bëgg tout simplement fexe ba def boppam dictateur yooyu di ko doon jéem a euh, gagner opinion bi d'accord parce que dañu doon euh, dañu doon àggale waxu Abdoulaye Wade bi doon wax ne un procès euh, politique ne se gagne pas devant les juridictions mais se gagne devant l'opinion mais nañ nañ bàyyi xel ne nag li fi xew lépp nag y a des actes purement judiciaires yoo xamante ne il fallait avoir des avocats bien équipés bien renseignés et expérimentés pour ñu génn ci la situation mais fa mi koy wax sànq mooy si affaire euh, euh, judiciaire bi nga xamante ne moom moo opposé woon Ousmane Sonko ak Adji sa soo xoolee fa la coow li génnee mhm. mais loo si gis ay avocat am ana ay avocat mhm. am yooyu vous vous rappelez un jour quand bu nekkee fii ma ne la man j'aurais préféré ils se sont battus hein préféré ils se préféré que l'avocat maître Bamba Cissé et maître Khoureyssi Ba que ñu gën a jël seen i temps pour mën a xeex ak li nga xamante ne mooy andi. li nga xamante ne waaw mais ñoom recours yi ñu waroon def def nañ ko non dama ne non dama ne non attends dama ne par exemple tey. dama ne foofu laa doon xaaree li nga xamante ne mooy peut-être avocat parce que avocat li li liggéeyam mooy devant le barreau. mais c'est-à-dire le président bi ngay wax ni euh, bu ñëwee. wala impact yi mën na dina mën a. dina dina mën a doy waar par exemple. peut-être ils se sont pas préparés pour xeex nag. foofu xaaral. foofu laay jëm xaaral ma ma ma jox la coup. boo xamante damay damay damay. foofu laay jëm sa bët. je boo boo waaw xaaral sama cours bu ñëwee mu saf je vous donne un exemple mais parce que kuy dem guerre aussi il faut s'attendre à tout. je vous donne un exemple foofu laay jëm. parce que tey soo xoolee. Ah, am yoo xamante non non am yoo xamante hmm. si fin temps lañ ko commencé def. Hmm. par exemple tey. Euh, boo xoolee Ousmane Sonko duggoon na fi li nga mooy ay recours ay voies de yoo xamante moom au départ moom moo doon toog devant l'opinion moom Ousmane Sonko mu ne duñ def benn recours wala duñu duñu euh, ànd ak ñoom sa fañ ñuy woo duñu wuy ji benn procès wala duñu wuy ji li nga xamante ne mooy benn juridiction mais après da ngay gis ne ñu def ay recours parce que si affaire Mame Mbaye Niang bi mhm. si gis après am na ay recours am na avocat yi mm, il fallait que s'attendre à ce ñoom ñu ñëw jéem mhm. a fexe ba loolu lu leen yoon may nañ si taxaw mais soo xoolee même ba si affaire aji saar bi si fin wu euh, du euh, procès bi lañ ñoom di ñaan njekk ne su leen mayee ñu renvoyé dossier bi si dañuy mën a woowee Ousmane Sonko mu ñëw présente pour que mu mën a éviter contumace bi ma yooyu noonu après nag que le coup est déjà passé que les avocats se sont rendus compte que il y a il y avait des combats à mener au préalable te boo si xoolee. parce que le combat était plus politique. exactement que plus politique juridique. alors que boo xoolee mais Bamba mais Bamba doguma la aussi mais xam nga aussi. nekk avocat Ousmane Sonko mais ça du yow rek yaay décidé. waay <laughs> ah ce que tu fais aussi da ko koy proposer moom xool par rapport à son combat. ban ban ban kii ngay am. donc avocat yi aussi il faut pas croire que. peut-être que lépp voilà voilà. d'accord mais boo xoolee. c'est des conseils. boo xoolee dama ne avocat yow reste dans ton rôle d'avocat et ba nga lu la yoon may nga jël. loo ñàkk xam ne yoon la ko ñàkk. gis nga Bamba cette affaire là elle est politique et elle se réglera sur le terrain politique. Mmh. waaw gis nga lii fa a koy. rek waaw léegi léegi léegi su fekkee ne politique. politique boobu ngay wax moom moo taxul ñu jëlee jiwoon ki nga xamante ne mooy Juan Branco parce que au lieu d' être purement avocat à Ousmane Sonko il était plus militant de Pastef et révolutionnaire activiste boo xamante ne soo xoolee li mu doon jëf n'était pas dans le cadre juridique mais c'était dans le cadre de révolte tey Juan Branco boobu fan la mujjee ak ñoom bërki Dimo Ndiaye moom moo posé lan la Juan Branco wax soo ma soo ko permettre si post bi pour montrer que déjà ils ont tout perdu Juan Branco dafa posté ne peuple sénégalais c'est à vous de résister nous ne sommes nous ne nous ne sommes que vos instruments ce sera à vous de vous libérer parce que le moment est presque fini kooku bu ko demee bokk moom Juan Branco cela veu di que li nga wax mooy li leen yoon may lépp. def nañ ko ah. jeexal nañ si lañ waroon a défendre sunk ak fa ñu waroon taxawee Sonko. maanaam boo xoolee ba si biir ñoom ils ont déposé les armes. parce que fa ñu waroon a défendre Ousmane Sonko dañ ko défendre Sonko Ousmane Sonko la ñuy xaar mooy que le peuple résiste pour man loolu. loolu noonu boo ko bëggee jëmale foofu. Mm-hmm. foofu mooy pen perdue mooy. game over xam nga tax game over tey peuple boobu ñuy xaar moom xam ne ma daan na foofu rek. peuple boobu ñuy xaar. Mm-hmm. ñoom ñoo nekk tey si stade yi si manifestation yi si xumbaay yi. di sonkorisation ba yaa ngi ko vous rappelé benn jour bu ma toog fi lu ma wax ma ne s'il vous loolu noonu di sonko ba xotteeku di sonko suba ba fajar.

juge bi procureur bi xamul luy sonkorisation juge bi xamul luy toog si manifestation yi si concert yi ci ndaje si stade bi di Sonko. mais juge bi ci askan bi la bokk est-ce que vous me suivez est-ce que vous waaw ma ne. les affaires d'accord mais ne ma ne. sur le plan juridique moom d'accord naa d'accord naa loolu mais les kay. ma ne sur le plan politique mi ngi def effet. au contraire bon je je parle de la ah. radiation. c'est ça lii c'est un acte juridique. ma ne acte boobu noonu nag. Ah. il fallait avoir des avocats bien équipés bien organisés pour que ñu def parce que sur le plan de la ah, démocratie. personne ne peut empêcher. personne ne peut empêcher. mais ces avocats dama ne dama ne dama ne sur la sur la sur la sur la démocratie. personne ne peut encaisser à des jeunes de sonkouriser le le Sénégal. et ça fait effet Youssou dama ko si naw parce que la may xalaat loolu la xalaat Youssou Ndour def na concert a Paris. qu'est-ce qui s'est passé bi nit ñi ne dañuy sonkorisation dafa ne bàyyi leen ñu wax. Eh, eh, sonko ba xottee yow yow man yooyu noonu <laughs> eh, yow mooy idéologie bi mooy moo gën a xam ne. waaw dé waaw déglu ma waaw d'accord mais ma ne. a def mais dafa naw acte bi xam nga ne <laughs> mooy loolu laa gëm mooy. <laughs> la war a waxtaanee. nañu bàyyi ku ne wax saxlaat ñoom seen mooy nañu sonkoriser nañu wax ba xotteeku waaye li nga xamante mooy wàllum justice <laughs> lool yoon moo koy jàngal léegi Ibrahima Pouye sur la question.